نيون نان اكيين تشلاتر مولاي شيخنا سيدي احمد تيجان بنو تامبالي وان اكيين واركو اغلي ان شاء الله تعالى بلا ما يدغنا تشلاتر بيدنا ام لوما ساكو تي مولم طالب تيجاني فون مونت نيك تدي مديغ رك امنا واي بو الفا دا ام اي تونتو يو خامتاني ورنا جيم تي موم نين كوي كوماسي إن شاء الله تعالى نخ في لير جواهر المعاني أمتي باس بو بو شيخنا سيدي أحمد تيجان دي وخي تي توحيد تي ربوبية الله سبحانه وتعالى تي جامو يلا تي لينا قمنتني مومو نيل يلا تلولو آية القرآن لن كولاد مولانا الشيخنا سيدي أحمد تيجان فري آية بابو فري قمنتني دق دق alfa ak ay sëriñam àgguñu ci dégg waxu cheikh na Sidi Ahmed Tidiane parce que dañoo déggu sax lugatul arabia am na nag lu ma jot ci waxam ja loolu dégg nañ ko déggaat nañ ko déglu nañ ko ay yoon yoon waaye dama bëgg képp koo xamante ni jot nga ci waxtaanu alfa boobu ñu jéem koo lijjanti intégralement ñu abal ma ko incha allahu taala ma déglu ko ndax ma xam fan la wax ji commencé li mu jot a wax ba tudd Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yi moom dégg nañ ko li mu wax ci jawaahirul maani jawaahirul maani nekk ci Cheikh na Sidi Ahmed Tidiane yi wax ko li mu wax dégg nañ ko dara du ci dëgg li mu wax lépp ay fen la te teguwul ci xam-xam teguwul ci loo xamante njub la sosal na Cheikh na Sidi Ahmed Tidiane waxal Cheikh na Sidi Ahmed Tidiane loo xamante Cheikh na Tidiane jubluwul ci wax loolu moom mu waxal Cheikh na Tidiane loo xamante amul léegi nag danaa leen indil waxam ngeen déglu ko waye tamit dana len indi li cheikhna sidi ahmed tidiane wax nga xamanteni mom jangul amul xam xam degul lughatul arabiyya xamul waxu عارفون بالله حتى ان شنا تجاني فري ني مو يومبي دغ ني مو يومبي خام موم الفا موم خاوما الفا صح موم با نيت دي تود الفا دنج دون تود الفا نيك كو خامتاني كاي دنجي واخني يو امغا دارا تي خام خام امغا دارا تي القران صح واي خاوما الفا غا فمو جوغي yaakaar naa ni moom dañ ko bëggoon tuddee alfa waaye nag ñu juum ca turwa waaw di ko woowee alpha boo xamante ni firiwul li alfa di firi waaw moom daal nit ku bon la koo xamante ni ku ñàkk teggin la koo xamante ni ku ñàkk xam la kuy fenal Cheikh na Sidi Ahmed Tidiane waaye nag na la wóor ni la dangaa jok yow alpha moomu pour tasaare tariqatu cheikhana sidi ahmed tidiane ndax seenaa tidiane yi képp ku wax ci moom rek yaa ngi bëgg a taal ta waame bi nga xamante ni incha allahu taala du fay rek da nga yokk ci ci xarmi karaw rek incha allahu kon yow dinañ ñëw ci yow yow alpha ak képp ku mel ni yow nag ngeen nga xamante ne nekkewu leen fi ludul di sosal góor yàlla yi nekkewu wulen fi ludul di wax loo xamante dara wóoru leen ci su ngeen amul xam-xam da ngeen di dem jàngi wala ngeen laaj dinañ ñëw ci yow incha allahu taala bu ñu amee intégralement sa wax yi nga xamante ni wax nga ko te dara du ci dëgg nag su fekkee yaa ngi may dégg tamit xam naa ni ñu me ñu bari ci yéen ñu ngi may dégg soo ma soo fekkee yaa may dégg nga envoyé ma sa son bi su fekkee bëgg nga ñu leeralal la ci li nga xamante ni loolu nga bëgg nekk wu leen fi lu dul eh, eh, rek di duural di di waxal walu yàlla yi li nga xamante ni ñoom waxuñu ko dama leen ngeen jàngi سكرفي مولانا شيخنا سيد أحمد تدان رضي الله عنه وخنا تي wax juray génneel ñu moom Cheikh Tidiane radiyallahu anhu fukki ñaar fukki jikko ak ñeent yoo xamante ni dafay sabab ci doomu aadama bi xolam wow mu fetteerlu du am dara ci leer nde loolu ak cànku la ak réer la ñu mel ni ñoom alfa ñii nag ñoom ñoo jikkowoo jikko yu bon yi waaw di di mer ah, ak di eñaane seen mbokk jullit ak bëgg aduna bëgg ak pal ak yëkkatiku di dugg ci loo xamante ni seen yoon nekku ci ci wax wala ci jëf donte lu néew la di bari ay ree di bari ay caaxaan ak di bëgg ci ay eh, daraja yoo xamante ni yàlla subhaanahu wa taala jox na ko fii ci aduna dégg ak ci sàggan ci tudd yàlla ak ci xalaat ci mbiru eh, ñàkk xalaat ci mbiru laaxira ak ñàkk xalaat ci mbiru xabru ak mbiru taxawaayu ëllëg yowm al ak yi nga xamante ni moom mooy dox foofu ak ñàkk baña a bàyyi ci mbiru xéewal yi yàlla wàccee ci kaw suuf si bàyyi ko fi nag ngir ñu mën ci xéewalu nga xamante ni yeneen xéewal yaa ngi xa li ñuy xaar ëllëg yowmal qiyaam ci aljanna ju rëy ja nee yii nag moom Mawlaana Cheikh Sidi Ahmed Tidiane nee na nit ki daal da ko war a moytu te maytu di moytu di xuus ci caaxaan ak fo moo xam wax la wala jëf ak di toog di déglu waxtaanu gaa ya nga xamante ni ñoom ay fookat lañ wala ay caaxaankat lañ ci lu dul loraange ak di ànd ak dof yi ñi nga xamante ni seen mbir nekkul ci euh, diina wala dara Seydina Tijaan nee na nañuy moytu di lekk lu ak lu nuloo ak moom ak di suur këll ak di bari lu ñuy naan ak di bari lu ñuy jëfandikoo ay shahawaat ay banex ak bari nelaw ak bari khalat ci xol ci leneen lu yàlla subhanahu wa taala ci mbollem halu lakhira yeb ci aduna ci lolou yeb wa qillatu dicrillahi taala ak new di tudd yàlla nañ ko bàyyi lañuy bari luñu tudd yàlla wa rida an nafsi bi istihsan halatiha muni yi nak dal mom la Cheikhna Sidi Ahmed Tidiane wax nak léegi nak mi ngi ñëw ci كونتريريو مولانا الشيخ ناسي سيدي احمد تدان نانا ومن أراد أن يلين قلبه فعليه بأضدادها مع ترك هذه الخصال نانا كيف خامنتني نمنا قلب نوي قلب نك قلب خامنتني قلب من recevoir لا فعليه alayhi نانا نك مانكو na nag واتو contraire yi mu njëkk a wax yépp maa tarki hadihi alxisaal ànd ak bàyyi yile jikko yi nga xamante ni yooyu mooy jikko yu bon yi mooy jikko ñu mel ni ñoom alfa yi nga xamante ni kenn xamul lu ñu doon jikko yooyu jikko baaxul la dafay tardeel doomu aadama mawlaana cheikh na sidi ahmed tidiane nag wax naa leen baat bu mu wax rek wala phrase bu mu wax rek su ngeen xoolee rek ngeen ngeen fekk ko ci alquran ومن أراد أن يلين قلبه فعليه بأضدادها مع ترك هذه الخصال قال ما عمر جان جن الما آي واحد جيمي فلتي شنا سيد أحمد تجاني واخي بعد بو خمنتني جغنا جغنا جغنا آه القرآن جنجري كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد بعد بانجوك ضد ومن أراد أن يلين قلبه فعليه بأضدادها الضاد جمع جمع ضد مع ترك هذه الخصال قال لكم مولانا الشيخ ناسي دي احمد تجان وهم اللي نكلا نكلا وردف مني كثرة ذكر الموت مع التوبة الكاملة الله أكبر كيما الشيخ تجان نانا كثرة ذكر الموت مع التوبة الكاملة بري اللول looy fàttaliku dee ànd ak tuub gu mat sëkk tuub gu wér yeneen ci yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ni inna alquluba tasdaa kama yasdau alxadid qila wama jilaa'uha ya rasul allah qala tilawatu alqur'ani wa dhikru almawt tilawatu alqur'an wa dhikru almawt ينتيال يعني محمد عليه الصلاة والسلام من يقول دا في قماك كم وين قنول نمي قماك نين كل لن كوي ليمي يا ينتيال محمد صلى الله عليه وسلم مني جانغ القرآن أك فاتل كده لنالته قلبي نوي قلبي ليمي قلبي ستويتش xomaag ga fa nekkoon mu deñ yow ñu ngi lay digal yow noonu yàlla bi yow noonu yonent yàlla muhammadin bi sallallahu alayhi wa sallam yow noonu cheikh sidi ahmed tidiane yow noonu walu yàlla yi nga dem tuubi dem dem fàttaliku dee xam ni soo deewee yàlla dina la laaj lépp li nga xamante ni mës nga ko wax de kathratu dhikri al maa tawbati al kamila moom la cheikh na sidi ahmed tidiane yi njëkk wax bari looy fàttaliku dee ku fàttaliku kay do fenal so borom julit rawatina wëlu yàlla rawatina ab shérif rawatina ko xamanteni ni ku mokkal alquran bi mu nek bi mu amé juróom-ñaari rawatina ku ajmaka ajmaka go xamanteni dafa dox ci tànkam dem ci wat rawatina ko xamanteni shari'atu islamiyya bi pek nako rawatina ko xamanteni limu am ci ay donga ci aduna bi ñëpp di sikkar di jaamu yàlla ngir jëmum ju tedd ji ëpp nañu milliard لينك جلت أجنبي نب بقولي جلتي بدي نت مليار لين وخم خملني بين مليار مليار باك جن والي نب أي طالب شخصي أحمد تيجان لين بدي فك مليار لين جروب نت مليون يب أي طالب تيجان لين قول كوتش سنغال رك نخم قول كوتش سنغال رك نخم أجنبي تيجان نيو في أبتج بير جلتي yow nag su la neexee nga baña fatali ko de bu la neexee nga baña tup wa taqsiru al amal bi istihdar al maut inda kulli nafas mawlaana cheikhana sid ahmed tidian nee na nga gàttal mebeti na nga gàttal sa bëgg-bëgg yi ak sa mbos ak sa beet yi yëpp na nga ko gàttal bi istihdar al maut ci teewlu xaar dee inda kulli nafasin ci bépp nokki rek goo xamante ne yaa ngi koy nokki sa dund gi dund gi la yàlla jox jamono ji nekk rek yaa ngi fuglu dee yaa ngi kaar dee ci waxtu wooy nokki rek yaa ngi xalaat ndax sama émission bi ndax dana jeex ndax li ma bëgg a wax ni ndax yàlla dina ma bàyyi sax ba ma daaneel sama kaddu gi loolu la ñuy fàttalikoo dee te Cheikhna Sidi Ahmed Tidiane nee na na nga gàttal lépp rek lu nekk rek nga yaakaar ni balaa ngay pare commencé balaa ngay pare rek mu jeex déegi fekk la foofu wa taqsir al amal bi istihdaar al mawti inda kulli nafasin kii mooy Cheikh Tidiane xam nga ne li nga koy waxal waxu ko de moom lii la wax moom Cheikhna Tidiane moom lii la wax wa muraqabati llahi azza wa jalla inda kulli xarakatin wa sukunin bilqalbi wallisaani wal arkaan la ilaha illa allah kii mooy Cheikhna Sidi Ahmed Tidiane nee na wa muraqabatillahi azza wa jalla nee na la ngay fuglu yàlla na ngay seet yàlla waaw kuy fuglu yàlla di seet yàlla suba ak ngoon guddeeg bëccëg li ngay wax war nga ko seet mu ne inda kulli xarakatin mu ne sa bépp yëngatu rek booy yëngatu wa sukuunin ak dal gi nga xamante ni yaa ngi koy dal bil qalbi moo xam ci sa xol bi la nga koy fugloo wala wal lisaani wala boog yaa ngi koy fugloo ci sa lamiñ wal arkaani wala ci sa ponk yi nga xamante ni moom la la yàlla jox lépp moo xam tànk la moo xam loxo la moo xam bët la moo xam nopp la moo xam gémmiñ la moo xam pëy la lu mu munti doon rek na nga ci fuglu yàlla subhanahu wa taala lii la Cheikh Tidiane wax moom يولين وحشجان كده ومراقبة الله عز وجل عند كل حركة نحن لأننا فقل يالا ممغ مريم كايمي متدمي fépp sa bépp xaraka mooy sa bépp yëngatu booy yëngatu rek nang na na nga ci gis yàlla subhanahu wa taala waaye wa sukunin sa dal gi ngay dal jamono boo dalee rek ni tegg ba nga xamante ni yëngatuwuloo defoo dara rek na foofu rek nañ la fa fekk de yaa ngi fuglu yàlla subhanahu wa taala yaa ngi seet yàlla bil qalbi ci sa xol ba xol baa ngi fëgg lan la bi di fëgg lu xol bi di wax su fekkente ni yow danga am xam-xam ba nga ba nga ni da ngay tontu Cheikh na Sidi Ahmed Tidiane waxal ñu xol lan lay sikkar ñaata baat la xol di wax bil qalbi ci sa xol bi wal lisan ak sa làmmiñ bi lamin bi nga xamanteni yow ya ko boyal rek lula neex nga wax ci leena na Cheikh Tidiane nag waxal ci sa làmmiñ bi fuglu ci yàlla subhanahu wa taala wal arkan ak ponk yi nga xamanteni mom la la yàlla jox ci cieur yi moy loxe yek tànk yek beut yek yeneen ci des sip ki moy Cheikh Sidi Ahmed Tidiane wa nafyi al-ghadabi mutlaqan neena nak na nga bàyyi mer nga dàq mer ba faw illa an yataxaqaqa lillahi azza wa jalla lu dul dafa dëggu ci yàlla subhanahu wa taala booy mer rek na yàlla tax de radiallahu an cheikh tidiane wa nafi lxaqdi nee na nga bàyyi keñaan ala almuslimina mutlaqan min aduwin wa sadiqin nee na na nga dàq mer na nga dàq keñaan na nga ko dàq ci mboolem jullit yépp bul bul bàyyi kenn nag ñépp la ñu boyal jullit yépp min adiwin wa sadiqin moo xam sa noon la moo xam sa xarit la waaw xoolal Cheikh Tidiane lii la Cheikh Tidiane yi wax yow su fekkente ni dangaa bugg a xam lu Cheikh Tidiane wax rek lii la Cheikh naa Sidi Ahmed Tidiane wax yow li ngay wax Cheikh naa Tidiane waxu ko ñu naan xaw ma alfa la tudd aka mun a fen nañ ko waxal kay nañ ko jàngal lettre bi nañ ko ko jox mu dégg ko moog ñu mel ni moom ñoom Umar Sall ak classe googu ñu sant Lo ak ñooñu xaw ma docteur lañu leen tuddee xaw ma ay fenkat rek du ñu waxal mukk di Tidiane li mu wax dañuy wax dara lu ci dëgg. li moy deug li la Cheikh Tidiane wax qala Cheikh Tidiane waxam ji kay xam ngeen ni leer la wa nafyi ghadab mutlaqan illa an yataxaqaqa lillahi azza wa jalla wa nafyi haqd ala almuslimina mutlaqan min aduwin wa sadiqin la la ci Cheikh Sidi Ahmed Tidiane wa wa nasihatu lahum nee na nañ leen laahee biir nañ leen laahee biir ci lañ nek ni nak di leen laahee biir di len xamal ni li ngeen wax ni du nonu wallahi duñ leen mere de dañuy xam ne da ngeen réer rek دعينا رير خملين لخو واو كي شلات يعني نينا والزهد في الدنيا والفرار من جميع وجوه رئاسة مولانا الشيخ ناسي أحمد تيدان رضي الله عنه رضي الله عن مولانا الشيخ ناسي أحمد تداني نينا مولم نينغا قمنتني مملد نتكي ورا جنيتي قلم بنجي قلبي leer xol bi nooy mooy wa zuhdi fi dunya nee na dëddu adduna de adduna bi du kër ku ko def kër tamit da ngay fala def joote rek lu nekk nga bëgg ko ci adduna bi bay wax loo xamante ni dara du ci dëgg والفرار من جميع وجوه الرئاسة وجميع أسبابها مولانا شيخنا سيد أحمد تجان رضي الله عنه نانا والفرار أقدو فقد min jamii wujuhi riyasati ci mbooleem anami pal yi wa jamii asbaabiha ak mbooleem sabab yi lépp lu ñuy xëccoo ci adduna bi ngir ni affaire pal comme tey jii gis nga suñu li fi ci ay campagne yu kenn xamul ku ci nekk di woote di wax ni yow nañ la wooteel yow yaay diw yow yaay nangam ku nekk ci ñoom sa bopp ngay bayal tool waaye du yàlla ci lu wóor xippil xool loolu la sëñ abbas sall waxoon مولانا الشيخنا سيد احمد تجان موم واخكو تي عرب موني والفرار اك دو من جميع وجوه رياستي اك مبولم انامي بالي يكتكو يي فالو وجميع اسبابها اك مبولم سين سببي يب نانكو داو رك وترك ما لا يعني من قول وعمل ak bàyyi mbollem lo xamanteni suñu yoon nek ci mo xam wax la wala jëf la yow do taalibi tidian loy luñ ñu to waxu cheikhu tidiani diko wax ba diko yàq ba diko ko sosal lu ci sayon yoon wa tarki maa laa yaani min qawlin wa amalin te lii nag xadis yonent yàlla muhammadin la sallallahu alayhi wa sallama ma waxoon ni min xusni l mari tarkuhu maa laa yaanihi bokk na ci lislaamu as cam bi gën rafet moy nga génn ci lu sa yoon nekkul nga bàyyi lo xamanteni sa yoon nekku ci yow gëmo cheikh Sidi Ahmed Tidiane gëmo talibé cheikhuna Sidi Ahmed Tidiane yi gëstu ay waxam lu ci sa yoon bañuy wax nga di nga di nga di sosal cheikh Tidiane wa dawamu samti illa من ذكر الله عز وجل nee مولانا الشيخ ناسي Sidi Ahmed Tidiane اك na ak ak noppi takkoog noppi rek wa dawaamu samti illa min dicrillah ndere ndere tudd yàlla subhanahu wa taala mukawema murima mumagma mu rëy wa kathratu lxasini min amri alaxirati ak bari jak jàq looy tiit ci mbiru laaxira ku mbiri laaxira di jàqal ku mbiri laaxira di tiital xam nga ni dootal sos de والبعد عن المزاح وأهله أكثر أكبت ak wax ludul wax ju feccantiku wax jo xamanteni dara du ci deug neena nga sori ko ak ñoñam nak wal buudu an al xibati wa ahliha ak sori lol jëw ak ay xetam ay rambaaj ak yu mel ni ki noonu والتحفظ من مجالسة من لا تسلم مجالسة من دقائق الغيبة وتحفظ عن غيوته من مجالسة أكتو غايو من لا تسلم مجالستهم من دقائق الغيبة أكو قمتني دو جبل توغايم بابو لودول أي وقت يو قمتني أي جولك لكوي لكوي متلي نانا سناسي رحمت يانينا يعني وطل من يري وترك الفرح بالحظوظ العاجلة أك باي بك ci ndombal tànk walla chance yi nga xamante ni dañ la koy jox fii ci adduna loo xamante ni adduna kese lay yem loo ciy kontaan Seydina Sidi Ahmed Tidiane nee na bàyyil kontaan ci yooyu bu ci kontaan buñ la nomee ay député bul kontaan buñ la nomee premier ministre bul kontaan buñ la nomee ni yaa fi jël euh, disque d'or nangam bul kontaan nee na ndax mbiru àdduna la ci lan ngay kontaan ñu ngi ne yow taalibi tijaan nga demal dem nga jàpp tariqatu Cheikh Sidi Ahmed Tijaan lan ngay kontaan man kat dem naa jumaa ba ñëw lan ngay kontaan man kay def naa sama xadratul jumaa tey lan ngay kontaan jàng naa kaamilu alquran lan ngay kontaan fekk naa fu ñuy jàngee suuratu Yaasin lan ngay kontaan yii la ñuy kontaan lii moom la Cheikh Sidi Ahmed Tijaan yi wax kii nag moom mooy sëriñ bi nga xamante ne lii lay digal ay taalibeem wa tarki alfaraxi bilxuduudi alcaajila وترك الحزن من فقدها أك باي جاك تي يك تي نك دارا نك دارا تانغاي تي تانغاي نك تانغاي تانغاي سالي ديريت تالي تي بي سو امي مليون تاي مورير مو ام مليون ملاك ما ام مليون ني جيلكو دوكا تاخا سالي دوكا تاخا جاك دوكا تاخا تيت يالا ميكو موي مينغ في تي مان نكو جوخات اكسترا اكسترا مو خام كوتي ci ñàkk sa waajur la moo xam ku ñàkk sa xarit la moo xam dara amul dara looy mën a ñàkk ci adduna bi lu la yàlla mënul joxaat amu fi donte yaay la sax sa yaay nga xamante ni benn la ci adduna bi yàlla bu ko ñàkkee nga ni nga wax baat bu ba nga ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna do yàlla du la joxaat yaay bu la juróon waaye dina la jox yaay ji mel Cheikh Sidi Ahmed nga xamante ni ya su la nampalee benn rek dootoo soxla benen wen bi ci waaw ñaata ñaata nit tey ji ñoo fi ñàkk ndey ak baay Cheikh na Tijaan Ahmed Tidiane yi ñëw jël leen nekk seen yaay ak seen papa ñaata lañ wallahi la tuaddu wala tuxsa mënee su ko lim mënee su ko takk waaw te xam nga ni am na ci ñoo xamante ne sax ndeysaan yërëm woon nañ leen ndax yaakaaroon nañ ni dañuy torox bi seen bàyyi teel a génn adduna ñu yaakaar ni ñii dañuy torox ñoom ñu wëlbati ko rek dem jàppi tariqatu Cheikh na Sidi Ahmed Tidiane Cheikh na Tidiane yi leen ci weenam woowa <laughs> ndeysaan yaa ngi fàttaliku nag yow yi yow mi may dégg yaa ngi fàttaliku keroog ba ñuy Sharifa di waxal eh, ñaari weeru Cheikh Sidi Ahmed Tidiane benn bi muy nampal njabootam gi mu jur ci deret ak geneen gi mi nampal njabootu ruuxam yaa may dégg xam naa ah mi ngoog ah ñi xam-xam nañ nag ah mi ah, sunnati min سنة الغفلة بذكر الله عز وجل نانا اك لول اك لول تي سنة يونو لغا قمتني موي ساقن وليستو دي الله سبحانه وتعالى وطول التفكر في الموت وطول التفكر في الموت والقبر وسائل أهواله إلى يوم القيامة مولانا الشناسي دحمد تجان نانا ak bari xalaat ak bari looy xalam ci dee ak bàmmeel ak mbooleem yi nga xamante ni ñooy seen mbir yooyu ba yowm alqiyaama wa tuuli tafakkur ak bari xalaat bari xalam ah fil mawti ci dee wal qabri ak bàmmeel Cheikh Tidiane lii leen digal ay taalibe moo tax taalibe Tidiane yëpp foo leen fekk rek pare nañu pour dee ndeysaan sa xel mi ngi dem ci xasaanu tariqati tijaniyati muy bët di keroog ba muy génn adduna ndeysaan la mu wane woon taalibe tijaan buy dee nii la ko wane woon nag ñëpp di gis ku fi sa sëriñ ku fi sa sëriñ mën a wane taalibe buy dee indil ñu ko fi taalibeem buy dee nañ ñu ko indil sëriñ bu mën a wane taalibe buy dee xaalu deeyam ci staana tijaan yi laa ko gisee man ci laa ko déggee déggaatuma ko ci keneen de taalibe boo xamante ni da nga wóolu sa sëriñ ba ñu wax ci dem ci marché bi woote gaa yi ñëw leen ma won leen nit kuy taalibi tijaan buy dee ni muy mel loolu Cheikh na yi moo ko fi defagul ku ko def ku ko def rek nañ ma ko wax kenn defagu ko waaw liiru ma ko ci téere déglu ma ko ci benn cassette déglu ma ko ci benn borom waxtaan kat nag gaa ñu ngi waxtaan ku nekk yaa ngi waxal sa sëriñ lu la neex waaye ku fi sa sëriñ def lu mel ni lu bëddi mi xasaanu tariqa bi di def danañ la summi chapeau comme niñ ko summi le xasaanu tariqa ci tijaniyati waaw waaye ñi nga xamante ne ñoom amuñu sax sëriñ ñoom seen sëriñ sax ñoom nanguwul ñu sax li diw mooy seen seriñ ñoom wuñ ko wax waaw xaw ma ay wahabi yu ne lañ xaw ma ay ibaadu lañ xaw ma lu ñu doon fen rek lañ fi nekkee waaw wax lu dul dëgg loolu nit naka la ko mën a defee yow nga toog mbooloo tiim la nga taxaw di fen te mu wóor ne ngay fen loolu baaxul loolu baaxul waaye dañ leen ngeen jàngi kon su fekkente ne amu leen xam-xam ngeen jàngi wala boog ngeen laaj seen sëriñ bi Cheikh na Sidi Ahmed Tidiane lii la wax lan la bëgg a wax ñu leeral leen ko waaye nekk fii di wax rek di wax wax rek wax rek wax rek ah wala ngeen ñëw safina fii ñu jàngal leen bopp waxtaan yi ngeen di déglu ci safina fii su ngeen ko déggee ñoom xaaji ñi fi nekk ñëpp ngeen déglu leen ñetti fan ngeen di toog déglu safina rek incha allah taala ngeen nekk nit ngeen nekk nit nit njaay ngeen di nekk incha allahu waaw ndax gaa yi fii jaar ñoom macha allah taala waaw ñoom imam Shayba bu ñu la leeralee ci fiq nga nga daanu ñoom Abdoul Aziz Fall ñoom imam Top tabarakallahu ah ñoom alxaaji Moussa Gueye tabarakallahu gaa yaa ngi fi ngeen ñëw ñu leeralal leen loolu moo gën ci yéen ngeen nekk fii di wax loo xamante ne xamu leen ci dara su ko defee Mawlaay Cheikh na Sidi Ahmed Tidiane moom lii la wax moom waaw Mawlaay Cheikh na Tidiane moom lii la wax moom wa tuuli tafakkuri fi lqiyaamati ak bari لوني خلات تي تخواي بيسبنت وضروب اهوالها ومواطنها اني ولا على الحادث بكره بكيانتي يا محمد عليه السلام وخي نحمد ان ييقو يوم القيام ييب تي تخواي باك تي تانغاي باك دك ييب يالا نتل نانكو تي القران ني دوغ الجنه ني دوغ سفره ييب خم نانكا والتفكر في دركات جهنم وسائر أنواع عذابها لا إله إلا الله أقلات ci safara ci boppam rawatina nag xóotaayu jahannama ci boppam ak mboole melokaanu mbugal may fay nekk nga ci xalaat maguma sax jàng aaya yi nga xamante ni moom la yàlla di wax ci safara ndax tàng gi ñu tàng ndax metti gi mu metti waaw لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم لا إله إلا الله شنات يعني لي لوحد فاتلي تالي بيمي سهرة نمل أقو تايبة واي منافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لو القرآن يعلم أكوا كجمل دارا نافق لا آه، يوم يدي واحد دار للجمل واو وانا ان شاء الله تعالى سين بسنجنو والتفكر في الجنة إيش يا أختي جان من هنا غير قلات الجنة وسائر أنواع نعيمها نغي قلات الجنة أكم بولي خيوالي ينغ قمنتي نك خيوالي تبي تبير الجنة بيسان ملوكاني خيوالي يفنك والعزلة عن مخالطة الناس جملة وتفصيلا إلا لمن يستعان به على أمر الدين ak deng wala azla ak deng ak beru ak sori an mukhalatati nnas ak jaxaso ak nit ñi jumlatan wa tafsilan ñëpp nak amul xajji ak seen illa ndere ممن نيال نيغا خامتاني يستعانو داني ديمبلنت بيه تيمام على امر الدين تي ميرو دين ني لا سينا سيد احمد تياني واخ ناني اندك نيوم لغي نك ياو نيغا خامتاني داني اندك ياو تي والو دين nga war len orienter ci walu din orienter wulen nga di len sank nagn la sori wal azlatu deglu shalatian عن مخالطه الناس جمله وتصيلا الا دره ممن يستعان به ala amri diin Cheikh Tidiane ku fonk diine la ku ko xam la waaw katalqi l axkaami wa tadkiri walwaadi wa suluuk dimbalante ci wàllu diine dimbalante gi muy wax nag mooy ka talqi axkaam ni ki sa nit ki ay atte atte diine yëpp wa tadkir ak jàng ko di ko fàttali li nga xamanteni mom la yàlla wax wal wa'd ak diko war diko jeme ci yàlla subhanahu wa taala wa suluk ak diko dimbele ci sobu jëm ci yoon yàlla ngir am fathul akbar wa adami al israil li xadit nnaas ak ñàkk déglu ak ñàkk déglu waxtaanu nit ñi bul déglu seen waxtaan xam nga tay jii liñu indil choona bu reey bi mooy déglu waaju bon ji nga xamante ni mi ngi duulal Cheikh Tidiane moo ñu indil coono bu réy bi yëpp boobu ba léegi biñ ko déggee mënuñoo dal mënuñoo mënuñoo teey mënuñoo def dara lu tax ndax déglu nañu wax joo xamante ni sax waruñu ko woon sax déglu waaye senat yaa ni moo ñu ko tere woon wa adami israili xalisinat wa tarki majalisatihim ak toogaay seen toogaay ñu wattu ko سوري سين توغاي وصحبة الصالحين أك عندك نباهني الذين يعينون على طريق الآخرة نيغا قمنتني داني لي داني ديمبلنتي نيوم تي يونو الآخرة كوتي نك نك يانغي ديمبل سمروم يانغي جابل سمروم يانغي آه، وان سمروم فان مو يون بي جيم تي الآخرة ويحضون عليها Euh, Samba mu mel ni mën nga ubbil gaa yi ñu dugg si soxna ñimma am na soxna yu bari yu mu bind seen tur ni naa leen nuyu léegi nag ubbil ma ligne bi ñoom xaaji bu fekkee ñu ngi ci ligne bi ñu ñëw joxe seen participation ku ci xam tamit waa ji may wax nga jéem ma ko fexe nu ma ko xamee rek wala nu ma amee ci ay waxtaanam xaw ma alfa la tudd xaw ma nan incha allah xam naa ci eh, lettre bi su jeexee ci lay dugg ci ay mbiram incha allah taala nee na soxna Issa Fall eh, Saar Gueye soxna Coro Jaxate Adja Maymuna Sall madame Ba Aminata madame ñoo soxna Maymuna Jaw soxna Maymuna Jóob mère Njaay aja Maymuna Jóob aja Rakki Ba aja Nogay Faal ndonga liggéey ndonga liggéey kooku moom kenn du ko fàtte El Hadji Malick soxna fatumata sise kooku suñu jigéen bu baax la gëj nañ ko gis baba warga wan mariam sané elhaji samba Jai fële ca parcelle je pense bien que ñooñu la su fekkee ni jumuma parce que moom daf ma koy bindal ay tubaab xaw ma moom fan la xamee ni man mënumaa leer ay tubaab bindal ma tubaab yi ajañi ma moo ko moo def de xaw ma

nena beru dal beru sori gaaji mo gëna gën ci yow fekente ni amo li amo ku melni ki kii nak nag imaginel sëriñ boo xamante ni moom lay digal ay taalibeem wa aklu al halal nena ngay lek lu dagan bi qadri al imkan nena se kem dayo li nga attan na nga fexe bay lek lu dagan al ala fa ala الاعلى فالاعلى <laughs> رضي الله عن شيخ تجار لقنا كاي لقنا كاي لقنا ياتي يوكتي نالكوكو وملازمة الجوع والعطش نانا نانغي بريل دي تاكو اقيف اكمر وترك مناولة الشهوات جملة وتفصيلا نباري نغي باري لو باي دي جفنديكو ولا دي ووت بانيخو بكان سي wala ci taqale mooy ni e, bànneexu bakkan moom lañuy ñuy wax sëy nga bàyyi ko lépp wala boog genn wàll ga jumlatan ci lépp wa tafsiran wala ci tàqale illaa lu dul nag an yajiba li daruratin la budda minha lu dul du nekk lu dul ñeel loraange waaye du nekk ba faw su mënul ñàkk rek ndax nekk nga ak soxna ci sa biir kër semaine bu nekk mun nga ànd ak moom benn yoon wala semaine bu nekk ñaari yoon alal akthar su dee dëkku leen mi ngi ci beneen réew yaa ngi ci beneen réew sharia may na la ñeenti weer yu nekk benn yoon waaye fi mu toll nii eh, gars yi dañoo jàpp rek ne affaire bi lu ñu war lekk la wala lu ñu la war hmm, la du noonu de بلا شان أديان ما قاله وتركم ملاولة الشهوات جملة وتفصيلا إلا أن يجب لضرورة لا بد منها ودوام السهر أقد باري الله فوق فوق ما ينكا نلو قدي ودوام السهر أدكتي فوق رك ما قم كو قمنتني الشيخ الحاج البوري جاني التجاني موكو جخون طريقة الشيخنا سيد أحمد تجان بيني نكوى الحاج إدريس جاي mi ngi fii ci Nord Foire kenn xamul ban at la gëj a nelaw guddi nelaw guddi bàyyi na ku bu yëgg ëpp na ëpp na ñeent fukki at ndax xaaj alburi bi mu génn àdduna ba léegi rek mat na presque fanweeri at ak lu topp 83 la génn àdduna te moo ko joxoon tariqa bi yar ko ci loolu lu jiitu moom muy génn àdduna xaaj alburi taalibeem boobu doomam jooju mi ngi fokk du nelaw guddi abadan ëpp na sax juróom fukki at léegi nag ñun Cheikh Tidiane ñu mel nii lañ am ñu mel nii la Cheikh Tidiane am waaw wa dawaamu sahari wal muraadu minhu wa min al juuci wal atash at tawassutu min gayri ifraatin wala tafriit mu ni li nga xamante ne nag moom Cheikh Sidi Ahmed Tidiane moom la namm ci sax ci xiif di xiif bari looy mar nee na at tawassutu nee na diggu doomu rek la ci namm min gayri ifratin wala tafrit mooy loo xamante ni doo ci ëppal du bari du tuuti dafay nekk loo xamante ni ci digg bi rek lay nekk doo ci ëppal du nekk loo xamante ni looy ëppal la du nekk loo xamante ni looy looy neenal la déedéet da ngay lekk jamono boo xiifee balaa ngay suur nga arrêté soo maree nga naan te bul naan ba mandi extra extra noonu la ko Cheikh Tidiane waxee gis nga waxam nu muy leere wa tarku munawalatil shahawati jumlatan wa tafsilan illa li daruratin la budda minha wa dawamu sahari mu ne nag xoolal mu ne wal minhu li ma ci namm ci ñàkk sëy lu bari li ci namm ci fanaane guddi yi di xoole li ma ci namm ci xiif li ci namm ci mar nga ne ko ah mu ne attawassutu digg doomu rek radiyallahu an cheikhna tijaani min gayri ifraati wala tafriitin wa tarku xadiisi alqalbi fi kulli cheyin bàyyi waxtaanu xol ci lépp lu mënti doon illa fi zicrillahi lu dul ci tudd yàlla wa amrul axirati ak mbirul axira tudd yàlla daal la cheikhna tijaani digle ak mbirul axira وكثرة ذكر الله عز وجل أكبر تدي الله سبحانه وتعالى وعداوة النفس بعدم التعويل عليها وترك السعي في حظوظها مولانا الشيخ ناسي أحمد تدان رضي الله عنه نانا نقول نونو بكن بي تيمبالم لو قمتني مام داكوي قتريك ديكو ديكو ديكو اتريك جمالك تي بوبام تيغا باي دوخ تي لو قمتني دا فاي ماي شانس بي بكن وترك السعي في حظها وعدم انتصار لها والانتصاف منها فهذه الأمور هي السبعة في لين القلب مولانا الشيخنا سيدي أحمد تدان رضي الله عنه نانا يي موي ييغا خامتاني موي سبب تي قلبي نوي قلبي لير su ko defee Eh, lettre bi waxoon naa leen ni xaw naa gudd tuuti su ko defee dañuy ñëwaat ajuma bii di ñëw insha allahu taala ci ñi doon topp téere bi maa ngi woon ci page deux cent cinq deux cent quatre deux cent cinq deux cent cinq la ñuy commencé waat ci bii di ñëw insha allahu taala nag ci la Cheikh Tidiane commencé nag di digal waji yi nga xamanteni mom lañu wara def wa alam ان من يريد الهدايه الى الله والى طريقه فهي خمسه اشياء اولها الايمان بالله تعالى الكامل بمتيخ في نك لا شانات جاني دي ديغلي نك كو خامتين دا فا بوج جوب في غاي جار بور جوب نيغو سوكو ديفه اندي نتي اي مبير جرومي مبير لا نعم نعم Diagne waay Diagne Diagne. marhaban bikum. man la Doudou Seck li ma sekkaat. xaaji Doudou. waaw ñu ngi lay ziare waay. Seck Seck allah yaqbal waay Diagne jërëjëf waay. marhaban marhaban Seck wallaahi ku la ñu déglu na jàng lu bëri bëri. marhaban Seck marhaban. ñu ngi jàng lu bëri bëri. tabaarakallah radiyallahu anhu. yal na yàlla fay. allahumma amiin yaa ngi ci yàlla boole. ana waa Sikaab yëpp def maa ngi ziare kenn Amadou Ban. jërëjëf mi ngi lay dégg mi ngi lay dégg. di ziare soxna ñi ma. mi ngi lay dégg macha allah macha allah bi daal moom ñëpp. wallaahi hakada hakada. kër yi ndongo liggéey ak Hadj Malick. Hadj Malick wallaahi ñu ngi lay macha allah jërëjëf Hadj Doudou Seck macha allah taala ci eh, Sikaab eh, moom macha allah suñu papa ju baax la ñu ngi koy déglu bu baax ak ñoom ndongali ak Hadj Malick seeni waxtaan yeeg seen yëngatu yi tabarakallahu yàlla yàlla barkeel leen naam salaamaaleykum waaleykum salaam warahmatullah nijar ziyaara maqbula kana libaas waaw nijar libaas kayfa talxaalu sant yàlla ba alhamdulillah mbaa yaa ngi ci jàmm waaw ñu ci jàmm alhamdulillah maasha allahu taala amadu gën a dañ am mbégte de wallahi jërëjëf liñ la ko waxoon si lu ñu kenn déggul ala xam ne moom la ñu amaat sañ-sañ di ko wax tey jërëjëf Seexu Tijaan jamono ju nekk am na ñu koy waxal. wallaahi dëgg la. li nga ci wax rek ne kuy wax ci moom si safaan. yaa ngi yokk mbir mi. dëgg la. parce que buñ la ci tontoo. li nga xam leneen yow loo ci xamul woon. dëgg la. loolu moo tax mooy wax bi nga wax. sànq rek wallaahi yokk ci xar mi karaw rek la de. <laughs> billahi walaay taala wallaahi yokk ci xar mi karaw parce que wax bés buñ ko tontulee ba mu ba jàngal ko mu leer ci moom. dina ah kon man ndakate xamuma woon. dana wax ne xamu ko. xamul dara sax waa ji kay boo ko déggee ni muy waxee man kay dinaa la envoyé son bi sax incha allah dinaa la envoyé son bi te dinaa ñëw incha allahu taala waxtaan ak soxna ñimma ñuy teg son bi may tontu muy muy wax moom ma koy tontu. incha allah waaw parce que gars yi nag dëgg dëgg nag dañ ñëw bëgg a yab te nag loolu duñ ko nangu nag. waaw dëgg dëgg duñ ko nangu nag wax dëgg yàlla ñoom xamuñu dara ba pare duñ dem jàngi. يا رب العالمين يا يا يا يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين رضي الله عنه الحمد جرجف ننتمد كذلك ننتمد كذلك جرجف سي الفا جرجف يعني آه، الفا لباس بالمحق له ماني بالمحق ماني جوم جسد تربيدي لا واخ لنا لولو لباس <laughs> لا باس يا الله يقبل ما شاء الله ما شاء الله يا رب العالمين زيارة مقبولة ما شاء الله تعالى لول ماي اميشن بي ياكرنا وقت بي جاتنا كون نغي دي جوخ دخ دخ ان شاء الله تعالى اجمو بي دي نيو بحول الله وقوته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته